maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew maa ngi nuyu borom bi di nuyu chef de quartier bi di nuyu sëriñ bi yëpp maa di nuyu di nuyu kii nga xam ne maanaam moo ak man kii moo responsable des femmes mbokk yi vraiment dama kontaan bu baax ak yente Medina Fall parce que Medina Fall quartier bu ma xam la bu baax a baax maa ngi fàttali bi may def sama mémoire quartier Medina Fall la jëm laa jël pour def sama soutenance moom laa jël en 2008

am na fu mu war a jëm pour dire rek moom si mouvement bi la boo xam ne damay bàyyi yitt ñu ànd ak man si loolu mbokk yi ñun li faral di wax toujours ñun suñuy wax bëriwul dañuy jëf ñun nak mouvement anu ànd soxla Thiès Habib Niang mouvement de politique la mouvement boo xam ne dañuy jóg jàppale son excellence le président Macky Sall pour am deuxième mandat en 2019 ñun xaaruñu dañuy jóg suñu tànk suñu tubay pour ànd population bi ñun dañu bëgg a ñëw di jàppale askan bi si loolu wax naa ki nga xam ne aussi moo sabab ñëw bi tey mooy moo frère moom mooy sama conseil tout ce qui est propagande mooy Pape Thiaw moom war a ñëw bi tey maa ngi koy sant di di gën a renouveler sama confiance moom xam na ko parce tey mouvement bi tey bu toll fi tey ginnaaw yàlla tamit mu am moom sonnul suma si ngoon mu ngi nekk ak man di réfléchir pour vous dire rek man wax naa man ko Thiaw yow yaay député Médina Fall parce que fu muy nekk Médina Fall rek lay wax si loolu mbokk ñun mouvement ànd soxli Thiès dañu ñëw jàppale son excellence le président Macky Sall président nag mu ngi def effort yu bëri biir Thiès si loolu am na xale yu wax nañu mais ni ngi si wàllu formation bi incha allah rabbi dinañu jàppale jeunesse Medina Fall si wàllu formation yi si loolu am na formation bu ñu war a def mois de mars Inshallah waxna mon frère mon ami Pape Thiaw ma au moins choisir ay jeunes yi formation bi bu yalla faire formation paré rek dañu am une formation. Fall aussi bo xolé Medina Fall bëri ay yit ay potentiel mais comme nous ko xamé président mu def mais xel yépp mu ngi fait limu mëna formation jigéen ñi ci dina leen defal ay formation si wàllu origel ak savon soobu yàlla kooku jox na ordre kii nga xam ne maanaam moo responsable des femmes mooy Adja nga xalaat ci boobu baax a baax ak coow ñu commencé la formation des femmes si loolu bi may ñëw dama wax caam man de maa ñëwoon naa Medina Fall ñëwaat naa fi tey bi may ñëw indi naa leen ay godaas ay protège pour may ko ay see dina Fall ci loolu li ma mun rek mooy mbokk yi ñun ngi wax bëriwul dañuy jëf en tout cas ñun ñu ngi ñaan xale yi Medina Fall yi mu doon jeune mu doon ndaw na ngeen ñëw fekk suñu ñun mu mu ànd soxla Thiès li liggéey ngir soxli leen Medina Fall ku soxli Medina Fall soxli ngeen Thiès en tout cas lu mun mooy comme sama natong bi mon frère mon ami le ministre dafa wa am na benn voyage bu ko bett legui legui motax man moom motax ma guddal du ma guddal ma mun a yem wax bi fi maa ngi tàmbali nuyu Serigne Modou Lo ni fi euh, chef de quartier bi. di ko ñaan mu doxal ñu suñu nuyoo ci kilifa quartier bi di nuyu am euh, Amdi nga xam ni moom suñu kilifa la ku ñu yàgg a xameel la di nuyu waa Medina Fall yëpp. Euh, yaakaar naa ni lii sama mbokk suma xarit Habib wax jarul ci teg lu bëri dégg nañu li population bi wax waaye li olof wax kopp jëf dafa fay àndaari wax am na loo xam ni jarul wax jëf day dëggal wax wala mu weddi ko. li ñuy def jëf lay doléance pour l'emploi des jeunes daf cee le président Macky pour cette année 30 milliards de francs CFA la jël def ko ci loo pour l'emploi rapide mooy ni maanaam jeunes yi nga xam ni dañu am ay projet war a bëgg a liggéey war a nekk ci ay activité ñu financé leen te ñu jël procédure banque yu yàgg yi ñu mën a teel a jot xaalis mën a teel liggéey ngir mën a jariñ seen bopp jariñ seen askan jigéen ñi li may wax président ci boppam moo ñu ko wax moo ni bu ngeen di liggéey ànd leen jigéen ñi liggéey nu tax mu ni jigéenu Sénégal ndax ku wër réew mi la xam réew mi ruq bu ne mu xam ko mu ni li mu gis moom ci jigéen ñi mooy bu ñu leen dimbalee ñi ngi jëf bu ñu leen dimbaliwul ñi ngi jëf li wolof di wax leen dimbal na ca fekk loxol boroom jigéen ñi seen loxo nga ca ba pare président yi président yi nous jigéen ñooñu sawar na ci dimbali enveloppe am importance rien que pour aider les groupements féminins avec les femmes pour plus d'autonomisation et alléger leur activité leur permettre d'avoir des activités sources de revenus parce que jigéen mooy dimbali njaboot jigéen ñi ñoo nekk ci xale yi jigéen ñi ñoo nekk ci jàngu xale yi jigéen ñi ñooy toppatoo njaboot yi kon président dafa def une attention particulière pour les femmes mais année bi année bi kenn ku nekk dégg na li ci président Macky Sall dafa wax ni année bi daf ko def une année sociale année sociale mooy lan mooy nga tàmbalee ci liy njëkk a yitteel askan ku wérul dootal dara kon wér gu yaram

kenn du ko ko waxal daf koy jëf ndax moom dafa ni bi nit ñi di jàngi wax man dama jàngi jëf moom day jëf nitu jëf la ñun li ñu sant mooy nekk ci biir nit ñi jaxasoog ñoom xool seeni i yitte xool seen i préoccupation ànd ak ñoom jëf li mën a li ñu mën a lijjanti léegi ñu lijjanti ko léegi li nga xam ne dañuy ànd ak ñoom jëfandoo ko ñu ànd ak ñoom jëfandoo ko xam nga lan lañ tere diggee asamaan te amoo échelle loolu duñu digg loolu duñ ci dugg ndax nax nit ñi la nax sa bopp la fii fi la ñu dëkk fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la màgge dañoo bëgg saa su ne ñuy mën a dox di jaxasoo nit ñi di ñëw ñoom di waxtaan ak ñoom du ñu sëgg du ñu moytu du teg loolu boo ko bëggee da ànd ak nit ñi ci dëkk li ñu fas yéene mooy ànd ak yéen ñi suñuy di suñu ay yaay di suñu ay jarbaat di di suñu ay jarbaat ngir ànd suqali kees ndax nag keesañu ñor sénégal yépp ñor nañu waaye nag kees a ci jiitu te ku ni kees ni Madina Fall fii maam Cheikh moo ko sant nga ni te waajur yu tedd dalal ko sëriñ bi lu mu waxoon jëf jàll ak jëf jël bu ñu jëfee jàll ànd ñu jëlandoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre ñoo ngi lay dalal ci sunu turu kilifa Serigne Moustapha Lo ndax bu ñu dalalee rek mel na ne waa Madina Fall yëpp dalal nan la ñoo ngi lay wax bismillah ñëw nga sa kër ñëw nga nag ci quartier boo xam ni quartier boo am histoire la ci senegal sax laay wax ndax sëñ Babacar Lo suñu maam moo fi dalaloon maam Cheikh Ibra mu ñëwoon 1914 la woon fee ci pencum Looyeen sanc fa sancal fi suñu maam sëñ Matar Lo ki fi mujj nekk xalifa sa maam Cheikh Babacar Lo da daan faral di wax ni dëkk bi neex naa dunde neex naa faatoo ndax nii tey caw mi woote ñu wuy su bu doon leneen na tamit muy naqar noonu la ñëpp loolu noonu dëkk bi ñëpp di ko wuy see ñëpp benn lanu ñoo ngi la fi dalal nag te di la ñaanal te di la it euh, jàppale bu baax a baax ci li ngeen di bëgg ci réew mi suñu borom defal leen ko kontaan nañ bu baax a baax nag lii nag ay kàddu la yoo xam ni suñu kilifa lam ñu wax loo ëpp na lii waaye nag lu ci manqué rek sunu jëmm la waaye lu ci eh, ñàkk a matit nañu xam ne matadik doomu aadama la rek waaye sëriñ bi nee na bu amoon la ko gënal mooy ñëw recevoir la moo lay teertu moo lay dalal waaye ku ne xam na ni poroxaan dafa woote woon mu demoon ca fanaan fa man bi sax demoon naa waaye xataay bi ak caw fi mu toll ci ñun moo tax mënuma ñàkk bañ a ñëw waaye sëriñ bi daal mi ngi lay dalal bu baax a baax mi ngi lay wax ni la dëkk bi mi ngi nii dëkk bi nag li mu aajowoo bëri ñu ngi leen di tàllal loxo ndax nee na dëkk bi rek moo ko moo ko itteel dëkk bi it moo ko ñor képp koo xam ni jàppal nga ko ci quartier bii di Médina Fall ah na la wóor ni kat moom jàpp nga ko bu baax a baax lu fi waay mën a def defal nga ko sa bopp ndax li ma la wax si njalbeen rek dëkk la boo xam ni maam Cheikh Fall ñaan na fi. ba suñ borom nangul ko muy dëkk bi ëpp ci Thiès muy quartier bi ëpp ci Thiès kon ñaan gu nangu la kon ñëw gi nga ñëw tey monsieur le ministre jàppal ni ñaan gu nangu la kon ñoo ngi ñaan ci barka mag ñu baax ñooñu lépp loo xam ne yaa ngi koy yóotu rek yàlla na la ko suñ borom defal tey nii ñu ko ubbee ci ak ñaan suñu waajur wee tey ubbi ñaan gi ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim ñu nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbi alamin kon yàlla na lépp commencé nii kon jéego yi yàlla na suñu borom def barke te ngeen amit lu kawe seen njort wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fii ci Medina Fall xam ni dëkkub jàmm la dëkkub salaam la ñun jigéen ñëpp ak góor ñi mag ñi ndaw ñi ñun ñëpp ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar di la tatagal yàlla na yàlla nangu lépp amin ya rabal alamin ñun jigéen ñi nag. ñoo ngi sa ginnaaw ndaxte dañoo sonn ku fi ñëw wax ñu ay wax doo ñu defal dara bi Pam ña Thiaw mi ñëwee nag wax ñu say wax ñun gëm nañ la te ñoo ngi sa ginnaaw suqali nga wax dañoo bëgg ku ñu suqali ndax am réew kat suqali moo fa ne surtout Thiès gi rawatina mel na faal ñun kat kenn defaluñu dara daanaka dañuy wax di ñu dikk te duñu gis kenn ku ñëw dugal ci sa poos bàyyi ñu loolu rek dañ cooy bëgg a génn sëñ ñoo ngi lay tàllal suñuy loxo di la ñaan nga ànd bii ni nga ñëwee fii ñu bëgg koo ànd ak yow ni ma tuddee sama groupement te yàlla tax ñu ànd te yàlla tax bañ a naxante loolu lañu lay ñaan ñun suñu amee suñ taxawee fii di wax rek xam nga ne xale yii moo ñu tax di wax ndax ñun suñu wàll wéy na waaye bu fekkee ni doom dafa a euh, aw waajuram te waajuram gisul lum ko awee waajuram rek mooy nekk ci waar wi ñu bëggoon nag ku ñu suqali suñu njaboot suqali ba ñu a toog kër suñuy doom di liggéey di ñu indil loolu lañ ñaan kon sëñ Habib ñoo ngi lay ñaan lii ñu waxante ak Pape mii te xam naa ñëw na ci yow ñu wéyale ko bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci ministre bi ci monsieur le euh, président de république muy problème chemin de fer ndax man chemin de fer sama waajur fa la doon yëngu yàlla dogal léegi euh, ñu ameel ñu woon ay contentieux yoo xam ne war nañu ko fay te contentieux yooyu ba léegi ñu ngi koy duruj yeexal ba léegi kenn ko ci dara depuis 2003 ba léegi ñu ngi koy yeexal fay ñu ko ah léegi nag mooy yóbbante ci président la république lu mu ñu mën a dimbali pour dimbali exemplaires yi pour ñu fay leen seen contentieux vraiment loolu lu ma sarga lu ma soxal la contentieux dafa am solo parce que exemple ñoo liggéey chemin de fer ndax chemin de fer boo xoolee raay bi diggante Dakar ba Kidira ku yëgati raay di sens traverse vraiment kooku moo liggéey chemin de ma bëggoon nag monsieur le ministre ak lu mu a doon boo gisee président de la République ñu ngi koy xamal ni ko na jàppale exemple cheminots euh, yi pour ñu fay leen seen xaalis parce que y a des retraites là-bas yoo xam ni kenn fayu leen seen xaalis ba léegi te loolu amuñu fi ko mën a joota parce que mënu ñoo gis Macky Sall pour wax ak moom léegi nag lu mooy Macky Sall na dalal ne loolu lijjanti suñu borom li bëgg Thiès dina ko am allah rabbi ma ma bëgg mu jàppale jigéen tam monsieur Niang jigéen mit nafaal ñu ngi nii liggéey dongo leen ñor bu ñu ngi daan seen doole aw yoonu marché di liggéey dem ak dikk xamuñu caaxaan xamuñu font ku leen ko ànd ak ñoom jàppale leen li nga bëgg di nga am ci ñoom bu borom ci parce que mobilisation bii nga xam ne Pape Issa mi def na ko mu woo leen ba ñu ñëw teew teew gi ñu teew vraiment loolu seen pësteef la ak seen takkute moo tax ñu def ko ndef am na noo xam bu ñu ko wootee woon peut-être duñ leen gis mais dañoo xam ne Pape Issa mii liggéeykat la te vraiment mouvement bi mu créé mouvement bu am solo la ñu war ko ci jàppale mu taxaw ci liggéeyal président de la république pour ñu falaat ko 2019 incha allah rabbi vous remercie monsieur le ministre. sukkali Cees rek moo ko tax a jóg. te pour pourtant ñu ngi ci ay projets yu bari dañu projeté benn cassette boo xam ne war naa génn ci xaalis bari la war a toll moom mi nga xam ne Thiès rek moo ko tax a jóg Thiès rek moo ko ñor pour jeunes Thiès yi liggéey rek moo ko tax a jóg ñu ko ñaanal bu baax ñun waa tur jàmm doy li mu bëgg yàlla ko yàlla am may ci kattanu suñu borom incha allah. mbokk mbokk Medina Fall ah ngi nuyu kilifa yu fi teew yëpp di rafetlu seen toogaay fii waaye tey ñun buñ teewee fii tey dañ fee teew ngir teewal jeune Medina Fall yëpp waaye tamit euh, euh, di teewal tamit suñu yaay yëpp jeune Medina Fall nag. daa am euh, loo xamante ni nii da leen a yàgg a métti monsieur Habib Niang lii yóbbante la pour yow. des jeunes te lii may wax jeunes xam nañ ci dara ñoom nag dañu dañu ñoo ànd ak yow mais dañoo bëgg nga saafara seen jafe-jafe seen jafe-jafe nag mooy euh, ku leen jàppale ñu am liggéey ndax euh, gis nañ aéroport bu bees bi am fii ci Thiès.

bu ko defee mu jaat jeune Ceesuwaay yi euh, ñu liggéey loolu tamit bu ñu sañoon euh, monsieur Habib ñaa nga jàppale ñu ci bu baax a baax ba suñu euh, moroom yi mën a liggéey bi ci topp nag mooy wàllu financement suñu yaay yu bëri dañuy jug fajar di dem marché di di daani doole di wuti lu ñu am te ku nekk xam na lu ñu am ci kër gi lañ koy indi bu ñu sañoon nag monsieur Habib Niang nga jàppale ci financement ba euh, seen liggéey gën a am doole bu ko defee ñu mën a euh, dimbali ko bu baax. ba ci ba topp nag mooy wàllu poste de santé bi euh, suñu poste de santé Medina Fall bi moom la ñu tiitaroo ndax moom lañuy ñu am am na jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne ni mi ngi koy jàkkanteel fu mu toll nii boo xoolee seen pharmacie bi garab yu bëri dañ koo manqué boo xoolee tamit euh, euh, matériel yi ñu war a am pour faj maladie problème boobu tamit dañ koo am bu buñ sañoon tamit nga jàpp ci bu baax a baax ba ci topp nag mooy bëgg nañ ci benn cyber boo xamante ne nii dañuy former xale yi former tamit suñu doom yi message bii daal la ñu jeune Médina Fall yi jox pour ñu jottali ko nee nañ nag message bii boo leen ci jàppalee boo leen woo ñu wuyu la waaye nee nañ bëgguñu laa nax de buñ sañoon liggéey ak yow nee nañ lii bu nekkee da koy def nga wax ko fii ñu adhéré wu léegi bu nekkee tamit mënoo ko nga teel koo wax ndax nee na ñoom homme politique yu bëree bëri ñu ngi leen di seet lu mën a nekk rek nga wax ko te yow nag am nañ ci yow yaakaar ndax bu dul dara gis nañ li nga liggéey ci yeneen quartier yi Euh, ci côté social monsieur Adi ñaa gis nañ ne yaa ngi jàppale jigéen ñi ci côté formation ba am na ñoo xamante ne nii ñu ngi defar saabu di defar eau de te ñoom ñoo koy defaral seen bopp di ko jaay loolu tamit euh, gis nañ ko bu ñu sañoon tamit fii tamit mu am fi loolu tamit ñu ngi ci ñu ngi gërëm bu baax ba ca topp tamit monsieur Alioune ñaa gis nañ ni tamit xale yi yaa ngi leen di yóbbu école ñu leen yi jàngal cours loolu tamit euh, ñu ngi koy rafetlu di la ci sant di ci gërëm bu baax a baax monsieur ñaa Niang. mais jàpp na ni maa ngi sant ak di gërëm mbokki mën na faal yëpp muy groupement de famille di wax également les jeune di waxee aussi sëñ Modou Lo maa ngi sant di la gërëm baax a baax sa teewaay sëñ Amdi ñu ngi gërëm baax a baax sa teewaay aussi Le euh, le ci dire rek moy li def dañ ko def ngir ndax ñu fi lañuy aussi mais quartier franchement quartier am solo parce que euh, quartier bo xamni ne parce fi ci nit ëpp na am c'est un quartier très important aussi mais wax ni je lance un appel aussi parce que l'histoire est vraiment bari c'est le ministre aussi dégg na aussi baax a baax beneen auprès du mouvement en tout cas derrière monsieur derrière Nian. ndax li à travers toute Thiès je pense que c'est visuel le mouvement a été créé il y a de récemment mais tout ce qu'il fait vraiment aussi quand même de rendre visible les réalisations du président de M. Sall à travers le plan Sénégal émergent je crois que je crois que lolo, lolo mam solo ndax man loolu la gëm Habib c'est quelqu'un bo xam ni aussi vraiment c'est un homme qui est effacé mën mu ko tag ndax lépp mom la c'est lui c'est quelqu'un bo xam ni vraiment liggéeyam dafa leer ci biir il fait des actions concrètes aussi ma bëgg devant les médias la koy wax parce que bi créé bi mu mouvement ba légui il y a des gens qui se rallient dans le mouvement ñu nekk ci Idriss Seck ñu ngi ñëw ku ñuy wax Ali Mbaye nga xam nekk ci Idriss Seck depuis longtemps ànd ak moom nekk nitam ñëw na jege ci ak mouvement And Suxali Thiès dara Macky Sall ku ñuy ku ñuy wax ku ñuy wax euh, madame madame Virginie Ndione jàmbaar fokk dënn en 2014 elle a créé sa sa sa propre dem élection locale am ay am ay conseillers elle est derrière monsieur Habib Niang pour grossir les rangs du président Macky Sall Également aussi, il y a un jeune du nom de Lamine Sané, nekkoon les jeunes de l'UCS bu Ablaye Baldé. Il est derrière le mouvement And Suxali Thiès. Je crois que lii Macky Sall war na xam le président Macky Sall ñu ngi lance un appel solennel nga jàppale le président monsieur Habib Niang bu baax a baax a baax ndax man ndax ñun ñun moom la ñu am Habib Niang la am moom titre moom may segoo donc bu ko bu ko Macky Sall aussi ñun la jàppale.

ma leen di ñaan ma leen di ñaan ngeen bàyyi xeex bi ndax li ñu téye am na loo xam moo ñu téye mais le pouvoir local nañ fekkee ni ko nangoo ci loxo Idrissa Seck nañ ko téye nañ ko nangu te am ci yaakaar ci yéen. maa ngi nuyu ñëpp ku fi teew turam ak santam maa ngi nuyu suñu kilifa yu baax yi teew fii di. représentant ou délégué de quartier Boumedine Fall di aussi sëriñ bi Yablé, Moming Hamantini, mi nga Wayam ni dafa warona ñëw am ay bi ziar monsieur le ministre monsieur Maguette Seye mi ànd ak ñun jóge fu sore ngir ñëw ci dëkkam bi di Thiès maa ngi nuyu suñu président mouvement ànd sukkali Thiès sama kàddu dafa am fu ma ko bëgg tënk tuuti ngeen baal ma mooy dafa amoon mag bu wax ne nguur ak nguuru bëggan ban moo gën

ndax dama yàgg di dégg ngeen di wax wolof yi ne ku la jox añ bu la joxee reer bu la diggee ndekki di nga ko nangu donc xaw ma wolof yi setul mais léegi en tout cas yàgg ngeen koo wax mais Habib est venu être votre serviteur c'est ça que je veux vous faire comprendre Habib dafa ñëw pour jëm jaamu soxla askan wi waa Medina Fall yéen dafa bëri dama leen bëgg a yee tuuti ci benn affaire am na ñi nga xamante ni kañ leen di gis bu élection di jub si ñu taal seen oto yu rafet ñëw ci dëkk bi jox leen xaalis fay leen maanaam leen ci ay oto ngeen ànd ñoom dem defal lu ñu bëgg bu paree bu élection ba jeexee ñu jëlaat seen oto delluwaat fa ñu dellu ñii nekk Dakar ñii nekk Paris bàyyi leen fii ngeen nekk seen ay problème nekk Thiès takku ak waa Thiès bokk ànd ak waa Thiès xool waa Thiès la mooy seen mbébét di ànd ak ñoom di leen jàppale ci formation yi école yi ak mutuel de carnet mutuel de santé yi maanaam la valorisation des femmes maanaam PSE du président en du président de la République maanaam la CMU couverture maladie universelle du président de la République loolu la Habib Niang di dox ci biir Thiès te ñëpp teg nañ ci seen bët dama bëgg yéen waa Medina Fall ngeen bàyyi ñu di leen yëpp ci oto ngeen bàyyi di dawal nit ku ngeen gisul ki ngeen gis nag moo ngi nii moo moo ñëw di jaamu seen soxla ngeen wax leen seen soxla mu koy def mooy Habib Niang kon nag yéen tey pour bañ a guddal dama leen di ñaan ne wax ngeen fi seen soxla moom du dige waaye lépp lu ko yàlla may te jox ko ko dina bokk ak doomu aadama yi te am naa yaakaar ne dina bokk ak yéen yéen waa Medina Fall ngir ngeen ànd ak moom sukkali Thiès dem ci kanam fal président Macky Sall au premier tour ñu ànd ñun ñëpp dem palais ànd ak président jàppale ko wasalaam merci beaucoup.